seytaane faalewu la ndax maa ngeeg nax ju yàlla ji lay faale moom mi ma boole nax ju fu mer jote mbaa gooxi leex nu xoolaat nax ju te bu tawat ñëwee itam nu faju ci nax ju nuy fàttali sunu boppa njaboot gi nax ju ak képp kuy settantal na bàyyi xel nax ju ku tedd kenn ko baaxee feebar de ci fajoo du caagi ne yaram rek kay tawat nanu jajju di for sunu xeli ak xol yi ci naaju te dañuy tilim seen saabu mooy naaju la téere bi tudd ko tedd ki mako wax moom la ñuy baaxe ñëpp yi ci lëmu nag mbóot la yoo xam ni mbóot secret am na yu ci nëbbu ci biir xam ngeen ya ni lii ma bind ni am na ay faa am ay waaw am ay miim am ay haa kabir yii yëpp lu ci nekk nag dafa am mboot ci biiram maanaam mboot mooy secret un secret caché dans une lettre ronde de lettre ronde waaw wala ak waaw wala ak wala ak faa wala niim rek hmm. am na mboot daal lii mboot mi nag mi ngi ci lettre yi nga xamante ne bi dafa ouverte dafa ubbeeku moo xam miim wala faa wala ha kabiir wala waaw wala saat yooyu bu ci nekk mbóote ngi ci biir waaw kuy setantal xikma nag xañ na moo koy mën a lunjutu maanaam lañ bët hmm. yu am solo la yi jàll ku tedd ki xamnu nu nu koy sante ndax naaju ndax bu góoxi la jotee wala mer wala fuuñ fuuñi wala daal yi xew ci jamono rek waaw boy xool naaju rek maanaam mu lay faj fekk da ngaa feebar te yëgoo ko <laughs> fitna oh. noonu la demee de nit dina feebar te yëgu ko di mhm. <laughs> ca gën a feebar tànk bi metti wala bopp bi metti wala bëñ bi metti mbaa bët déedéet dafa am yeneen i feebar yoo ni <laughs> koy <laughs>